jàkkaar lool Jackson moo la woon ginnaaw ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ yoo xamante ne ay ndaanaan lañ Jackson dagg na lewaatoo bi ma ngay demee wet moog Tony dañoo fas yéene laale ñoom ñaar dañoo fas yéene daje mbokk yi mu ngi noonu jiital tànk di jooram ma ngay dox Tony ki ngay bëreel ndaanaan la musul daanu ci làmb muy Jackson ndaysaan Tony Junior kenn waxaalew wu ko ndaysaan sama xel dem na ca Mbour lamb ba nga xamante ne Yaxya Joob Yékini moo ko organisé woon mu daje woon na fa Ada Boy Baol fa bëre bu rëy moom Tony naanaan la ci làmb Jackson 2 moom it champion la ndaysaan Tony Junior ak Jackson Jackson Tony Junior cokkaas na Tony cokkaas na cokkaas pour wut buntu la rek dara xewagut Tony Junior Jackson Tony Junior ak Jackson Jackson 2 Tony Junior Tony Junior Jackson Tony Junior Jackson Tony Junior ak Jackson Tony Junior ak Jackson 2 Tony cokaas Jackson dañoo fas laale Jackson dóor Tony moytu coup ñoom ñaar fu muy mujj Tony Junior Jackson Jackson cokkaasaat na Jackson cokkaasaat na Jackson cokkaas na Tony fayu na Tony dox ci kawam Jackson jëli na baax na daan na ko wala déet daanagu ko war na ko ndomba war na ndomba Tony war nañ ko ndomba da ciy génn wala déet Tony boo ci génnee ma xam ne ndaanaan nga ndaanaan bi doon laam-laamee dëgg la laa ilaha illallah eh Tony génn na ci laa na Jackson raté nga ak occasion bu rëy ci làmb ji action bu rëy nga rëcc Tony ndaanaan la daa mën a bare ee eh, lu mag doon def ba dee bu dekke ba ko Tony ko moo mucc ci làmb ji aa ah, Jackson waraf nee na saraax doom foo faree doom delloo ko sab loxo <laughs> waaye Tony lu mag doon def ba dee bu dekkee ba ko action bi la Jackson jël léegi sàcc la ah moytul mu amaat ko de Jackson Tony Tony ngi dox ci koom Tony jëli na ko daan na ko wala de daan na ko Tony daan na Jackson Tony daan na Jackson Tony daana na Jackson Tony daan na Jackson ndaysaan daan na ko oh Jackson daanu na jël bu ko bett ma ci action bi nga bëree action bi. dañoo juum rek dañoo jox coup bu mu àgguñu fu sori mais teewul ñum ñun bi ñuy jàng bëre waaye ji dañoo takk suñuy bët. dañooy takkal bët ñu takk moo tax foo ak soo àgg rek ñun mën nañ fa àgg baa jili mënoo nga xam daanaa lu tóoni loolu su la waree ndomba da doon pompé moom ban erreur la def ba rëcc ci wër ndomba bi loo xam ne waru ko woon def daaga bu doole moo tax maa ko bu doole fopp mënu ma see takk baa jili ko naat lu mu xam def na ko mais yàlla moom ma yëkkati tey maa ngi koy sant moom defet nga daan waaw noonu la lamb la lamb la tóoni ku nga xamul moom dégg nga ko mais incha allah stade bi dama kaa duy ci jëm fees del ba jil six cent billets lañ jaay barki Seydina Mouhamadou Rasoul waa gis nga moo loolu ñu ngi woo war waa commune bi ñu jàpp si ba jil te mënu maa wax faa nga ñëw ñu def émission incha allah amul ragal